bu bëree ba tas kay daanu rek ngay def waaye dëkk bi metti na metti boo xamante ne feebar bi yàlla fi gaaw jigéen tënk lu kenn du dem kenn du dëkk waaye léegi ana baaba sax xoolal xoolal lii def yéen a ngi toog ndax jógal may ma ndox ma naan li kenn xamul lan la da ngay xëy suba di dangi dangi di dangi dangi de buru loo yóbbu sa kër waaye yow looy def gaawal may ma ndox damaa mar ah baax na jërëjëf yow nag nday sa solin gii laa bëgg nga bàyyi ko yow xanaa amoon loo sol loo mel ni ku rafle boo jógee sol sa dagg yi di mel ni parce que te xaw ma ñoom kii noonu noonu del sol lu baax eh doomu julli day sol lu baax ah na nga correct day sol lu baax ku la gis jox la cër dégg nga dama la lakar dem ci biir ah xale bi lu mu mel yow yaa ko def ah doomu jullit day sol lu baax waaye bu nee nii rek nga jël ay takk ay kii rek di bëgg a kii nii ah. loola sama ak man loola sama ak man. jàppee ko ne rek buñ ne benn nga ne fukk. nee ngeen da ngeen ñàkk fayda. ba bàyyi tafaa mii ak sa ñaari xarit yooyu ngeen di watar watar ginnaawam ba lépp lu ñëw rek ci digg xaare yàlla gi ngeen koy seytaan mu koy jël waaye man nag ñàkkuma fayda boobu nijaay xam nga la laa bëgg tonu ceeb bi di ñëw fii moom laa bëgg mu dugg si fekk suma ma fii sama kër gi dégg mu déggoo ma te yow nijaay xam nga ma bu baax xam nga ci suuf rek ngay nekk xoolal Oh. dafa gën a bari xam nga lan laa bëgg ceeb bi fekk si ma fii si kër gi dina ñëw am di ñëw. day ñëw yow xam nga ni day ñëw man gëj naa yéeg. <laughs> te gëj naa wér du guddi ah, ah, gis na benn pied bu yow bu la dara metti yow loolu rek. Ah. yow ñaari ñaari saako yëpp dafa tuuti de yow ton bi laa lay fii ci biir kër gi nga jox ku la neex ku la neexul bu ko jox ndax damaa bëgg a yëg naa yëg nag ah maa la xam ak jàmm yow rek Fatou ah. say feem ah. ah da nga bëgg naa yëg de fàtte Moustapha Moustapha yaay wax loolu waaye moom yabu ma Moustapha rek ah. Moustapha moom yow yaa ma yab waaye Moustapha yabu ma Moustapha xam na ma bu baax sama yoon nekku ci man daal wax li ma lay wax bi na ma fekk si ci kër gi foofu rek laa ak yow. ñaari saaku ceeb ngay laaj yow yaa yow yaa matadi yow xam nga ni boo bëggoon six tonnes sax ma ma ma wàcce ko ah waaye lii rek moom daal nii la may def saa bu saa bu mu bëggee napp rek bu mu bëggee napp rek daal di di di may wan affaire am yooyu noonu man man lii kenn xamu ko man daal jaaxle naa oh. man damaa yaakaar ni dëkk bi ñun dañuy bëgg a dee wala dañuy bëgg a xaru Macky daa yaakaar ne ay prison la yor ba ñun dañuy tëj teg ñu ngi ni seetaan ay Miki Tomé Dieng rek waaye jiir itam si sonal na ko de fu ko toj ak ñoom Mister Bing moom Miki mi ngi mi ngi toj dëkk bi. ñàkk jom de weesuwul góor gu ne leen toog ci biir kër gi di wax ay waxu Miki naan mënumaa génn munu mënumaa dugg. léegi ma mënul génn mënul dugg nag. da ñàkk jom dama koy forcer. da ngaa ñàkk jom loolu laa wax. yaa sama ñàkk jom yaa koy tudd. maa koy tudd. si biti nga koy tudd waaye bu ñu duggee si biir ñàkk ma fa jom dëgg ñàkk jom weesuwul ni yaay Moustapha ñu jox ko cinq tonnes ceeb bi pour mu seddale ko ngeen toog ne léng léngaaral munoo leen ci dara yéen du ngeen bàyyi doomi jàmm bàyyi leen bàyyi bàyyi yu ñu benn bàyyi Moustapha jox kenn joxu ko ko ñàkk jom moo tax ñu teg ko ci loxoom ngeen toog fii di xulle léegi yow loo bëgg lu ma bëgg waaw dama ne ceeb bi dina dugg fii wala du dugg cinq tonnes ceeb yi laa wax ndax dina dugg fii wala du fi dugg waxagoo ba léegi nijaayee dama ne dina dugg wala du dugg dama ne ndax 5 tonnes ceeb dina fi dugg wala du fi dugg. bàyyi eh, ma dama ne ndax ceeb bi dina ñëw wala du ñëw. ceeb bi mooy ñëw. dina ñëw waaye bar barki sëñ Modou wax ceeb bi dina ñëw. loolu rek laa soxla woon. ceeb bi moom bu soobee yàlla yonent bi Baye Moustapha xam na ma ma yabu ma bu dee lii la ma bëgg a xañ dana leer ceeb bi moom bu soobee yàlla fii lay dugg ndax man danaa wér. suñu ceeb bi dugg ci jox ko chef bi rek ñu topp sama nijaay am Baye Moustapha indi Baye Moustapha surtout maa ñaari xaritam yoon tam naan ay doom ndayam baaxuñu guddi baaxuñu bëccëg waaye sama nijaay moom maa ngi koy xaar ba ba mu yegg si fii sama nijaay moom moom nag lay xaar ba mu yegg si miir yeeg picc yeeg ñëpp moom nañuy sabee xam naa ne moom ñeme na làmmiñ mbam mu moom man mi di jabaram sax man mbam rek laa ragal. ah Jabel na ngeen def alhamdulilah waa yaw moomu bi ñu doon sa mbalit mi ngay dajale foofu noonu ci buntu kër gi laa bëgg nga ba ko loolu yëpp wax ma ko xam naa ni may defal sax yow li si ceeb bi moom boo ko ci dama lay supprimer ceeb bi doo am yow sa njaboot ay ah, yi ngeen di wax yëpp dama ko wax réew mi toj fu mu nekk nii ñëpp ma bëgg a xam ndax ceeb bi ceeb bi bàyyi dafaa ceeb bi ceeb bi dama cee sonn ceeb bi sonn laa def. ay waay lii war na gaaw jeex corona bi sonal na ma waay joxe ceeb ku dégg ba jeex joxe ceeb <laughs> awa nee naa la ba taay booy fóot dégg awa bàyyi fu ngay teg fóot mi awa. waaw yow lan ngi xool fee nu ma ñu ma am ba pour am ñi ma leen jox ceeb. ci yooyu laay calcul waroo di awa awa yow it awa awa. awa. dama bëgg nga réglé. waxal loo bëgg yàlla na jàmm waxal rek. dama bëgg nga déglu ma gis nga yow sa ñaari xarit yooyu nga ne say doomu ndey nañ. dëgg yow nañuy xeex. na que ñoom dañoo fas yéene xëccoo ceeb bi yóbbu ko seen kër. nga boo ñàkkee fayda nag ba ñu jël ceeb bi yóbbu ko seen kër te yow indiwoo fi dara. di nga xam man ak yow du xam nga ma bu baax. awa yow xam naa la xaw ma la yow adduna bi ñëpp xam nañ ne xam naa la miir yeeg picc yeeg rab àll yëpp. xam nañ ni man yow yaay sama njiit yaay sama kilifa. waaye ñoom man maay seen njiit. loolu la yàlla dogal ñu si dara. waaw kay kam ka nag loolu nga wax xam nga ma bu gis nga boo fi indiwu ceeb du gis nga ma. way sama. du gis nga kurus ya du gis nga way xam nga yow li ne la yow na de fekk ma ci biir ma. billahi yeewu na man lii naa dee rek eh ana sa baay yow eh ana sa ma ko danañ xam ne lépp dëgg la moom Baye Moustapha bu dee moo ñu moom dana leer fii yow ko nekk tee ngaa gaaw digg gox bii danañ ko jëflante ba mu saaf yow yow tee ngaa génn buntu kër gi mooy yow bi nii seen njaboot yi ah. yow mënoo sama tur bi nga yuuxu ci mbedd bi nii oo oh, génnal ñu dem bàyyi Moustapha dana xam ne ceeb gi du ko séddale maa koy séddale xam nga lan moo ma soof ci yow dangaa bëri wax di ratatati di ratatati nii rek sama tur bi nii danaa bëri wax nii rek maa tey bàyyi Moustapha nañ dem grand place seeg ko fa ana Moustapha ma nga grand place lakkal ñu dem nañ dem dana xam ne bàyyi bàyyi Moustapha bàyyi Moustapha yéen lan la. yow xamoo lan la. déedéet. yow seytaane nga. sàcc nga naa fekk nga rambaaj la dee ko si boole ndax yow boo xamoon li ma li ma eh. eh, chef de quartier bi eh. doo fa dem naan da ngay jël ceeb bi yaa koy séddale kon nga jërëjëf xam nga naa moom ñoo fawandoo te ceeb gii xam ah. naa bi danaa ko tudd ceeb bi bul ko tudd danaa ah. a àndoon war a séddale ah. yaa mën na ñëpp jot ci yaa mën na bu dee yow li muy rek kenn du ci jot sàcc bi nga doon en parlant de ceeb sax yàlla def na dossier ba wàcc na ma ngi. falsifié la. ngeen di duul naan ay ceeb ak ki. yaa ma dàq duul yow. ah yow yaa dàq eh, fen boo ci delloo tee ma toj sa lu bon. laa wax ma lu bon boo ci delloo tee ma toj sa lu bon. waaw waxoo dëgg ñëwal yow. ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal yow. waxoo dëgg maa rëdd lii jàllal. maa rëdd fii. jàllal ñëwal ah ah yéen ñii attaqué. doo ñëw kon ni leen attaqué bi. ñëwal rek na attaqué kon continué leen attaque bi continué. Eh, continué attaque bi. defal eh, naa ko yow defal naa ko. na attaque ba ñëw. bu ko ma continué attaque ba. defal naa ko na attaque ba ñëw. tey foog ma yedd leen yow mii nga yedduñu waaw ma yedd leen ah yéen samay baay bu ñu amee lu ñu dundalab suñu réew ba pare te amuñ système bu mën a faj feebar mbaa loolu dina sotti déedéet waa kon ànd di ngeen ànd di xeex ceeb bi boo leen ko booloo woon xeex ko ngir feebaru jóge fi kon mu neex li ñu jaaxal mooy nu ñuy def ba xeex ko mooy que ne waajur bu nekk na nga toog sa kër aar sa njaboot te uuf leen te di farlu di boole waxtu bu nekk ngay raxasoo ndox ak ak eau de javel xam ne kat corona lu wér la. laay laay la laa. wuyu leen yéen lay waxal. yow mi lay wax sa ah, doom man sama doom ah. bu dee sama doom ba ci la ñàkk jom ba sa doom dina yem. dëgg ñëpp ko moom gënal ceeb bi da ngaa bëgg a séddale jëlal mën naa ko séddale. jëlal ba kenn tuddati ceeb bi rek. mooy jàppal ñu